ok ok maa ngi enregistré ni man nëbbatuwuma lu may wax ci àddina nëbbatuwuma baal leen ma tuuti ngeen kii. Mhm. daa ngi dégg. waaw. baal ma Kalif. Mhm. non. waaw. ci diggantes ci yàlla laay wax man ci sama bopp. waaw aw ma lu may nëbbatu ci àddina. Mhm. aw. xawma ku may fenal ci àddina mhm. awma ku may sosal ci àddina mhm. muy ki nga xam ni mooy so ki nga xam ni mooy Macky Sall mhm. su jege doon am Macky laa gën a jege ndax moom laa musa pël naa leen pour ngeen am dugg leen ci sama Facebook ngeen xool samay vidéo lu leer te su ma fekkee dàquñ ma wala la soxlaatuñ ma ni konoon législative yi su ñëwee mun naa am ci APR laa jëmaat pour campagne sans départ léegi-léegi ñu juboo léegi-léegi ñu xuloo waaye du ma waat ci alquran di fen du ma waat ci yàlla di fen man damaa gëm yàlla te gëm naa ne julli la julli laa te naa ne safara am na gëm naa ne ajjana am na mhm. te maa ngi ñaan yàlla bokk ci ñuy dugg ajjana mhm. te ajjana nag doo fa dugg mukk lu dul da koo liggéeyal sa bopp mhm. sama faa dugal muy Cheikh Ibrahima Niass yenent bi mënu moo faa dugal moom mi nga xam ne moo moo kën mbindeef yépp ci kaw suuf yàlla rek moo fa mën a dugal nit te pour mu dugal la fa say jëf yu baax lay xool mu jël la dugal la fa te jëf jooju laay ut nga li ma yor ak li ma yorut uh-huh. du ñoom uh-huh. ala wax na la démb gis naa benn waay bu nekk leeral TV uh-huh. am taxaw ne audio ne man ndaw si da doon wax ak man loolu la teg léegi na teg sama voix may naa leen képp ku am sama voix boo xam ne man maay wax ki nga xam ne mooy soxna Adji Sarr képp ku ko am Mhm. baal naa la nga génne ko ñaan naa la ko ngir yàlla topp ma la ci dara mhm. ku ko am rek na ko génne mhm. maa ngi koy wax topp ma la ci dara billahi wallahi tallahi lu dul gën laa ku am koo xam ne rek mun nga cee wax te man maa ngi waat ci yàlla ne am na loo xam ne du benn du ñaar du ñett du ñeent du juróom billahi wallahi tallahi ci loo xam ne lu jëm ci réew mi ci aji saar ci diggante sonko ak li xew man maa ko wax man bay bay ñass su fekkee ne sëriñ si nekk fii ci Sénégal ñooy suñuy kilifa. nekk suñuy xalifa. dañ bëgg jàmm ci réew. nañ ma woo ñoom nañ daj seen biir su fekkee ne Sénégal moo leen ñor tañ xam ne ñun seeni taalibe lañ. man xalifa yi laay wax fu mu ni wallahi wallaahi laasim damay wax xol laay waxee. billahi wallahi nañ xam ni. suñu lii ñu nekk ñun suñu barke maam yi la ak suñu barke bàyyi ci lañ ñu toppee. wallaahi wallaahi. loolu moo wala ngaan ba ñëw ci ñun ñii tey. Uh-huh. ñu ñuy raamal di ñu sukkal waaye du suñ mbaax. Uh-huh. billaahi wallaahi tallaahi du suñ mbaax. Uh-huh. tey may gis góor goo xam ne wóor na yàlla moo ma ëpp xam-xam ëpp ma daraja. gën maa sori ci yàlla tey nga gis ko bu sukk sama ron tànk yi. di ma nuyu di ma màggal lu tax mu koy def ndax sama barke baay moo tax mu koy mu koy def. kon nag ñoom ñooñu ñoo war a taxawu réew mi ne su fekkee ne lii am na yow Baye Mbaye Niass kaay toog ak ñun ñu toog ma wax ñoom wan leen li dëgg gi. ñu gis luy dëgg gi ñu taxaw ak ki nga xam ne mooy kilifa réew mi di suñ kilifa ñun ñëpp muy Macky Sall ñu ne ko kaay toog leen nañ leen teg lii ci suuf man loolu laay ñaan yàlla. <laughs> waaye man ñaanuma yàlla kenn tàccu ma ñaanuma yàlla kenn yëkkati ma soxlawuma ci daraja ndax am na naa daraja ba pare fu ma tourné am naa ñu may toog mhm. waaye dëgg dafa nekk ci xol dëgg joo xam ne dama ko yore mu nekk ci sama biir xol may dund moom man ak kese ak yàlla. dafa metti man rak ak yàlla dafa metti maa ngi ñaan xalifa yi cheikh muntaka cheikh maaxi si eh, maaxi sama sëriñ bu kunta bu laayeen bu ñëpp nañ oo seen rak laa ndax doomu baa ñes laa caatu baa ñes ñoom samay mag lañ waaye samay sëriñ lañ samay lañ mhm. nañ leen toog ma wax leen dëgg ñu gis ko ñu toog ak sax wax lii dëgg réew mi delluwaat nekkaat ci jàmm. wallaahi. billahi wallahi laazim fenuma tëdduma musa fen. Hmm? fenuma tëdduma musa fen barke alquran al karim ku wax nag ne am nga sama audio waxoo dëgg waaye nag am na ñoo xam ne jox naa leen ko dénk naa leen ko. Hmm. ñoo xam ne su ma leen waxee dee leen ñu dee su ma leen waxee dund leen ñu dund. Hmm. ñooñu am nañ ko waaye muy Morgan Morgan nag muy keneen ak keneen kenn amu ko ci man maa ko wax. Mollah Morgun amu ko man maa ko wax man Baye Mbaye. Mhm. kenn amut sama audio. Mhm. kenn ku nekk ci biti amut sama audio. Mhm. kenn amu ko ci. kuy wax da ngaa wax lu la neex. man sama digganteeg yàlla rek laay wax. wallaahi man mii sax aw ma ko wallaahi mosoo ma ko jox. kenn amu ko. ñu ko am. mu ci nag ay clé mu ci ay serveur am na ñu ma ko jox waaye ñooñu sama ndigal la ñuy xaar wala suñ ma demee ba gisatuma li ma leen wax lañ war a def. waaye kenn amu ko te lu may wax nii du caaxaan. su fekkee dëgg rek lañ bëgg nañ ma woo kilifa yi ma toogal ñoom ñuy toog ñoom ñu dégg may dégg. Mhm. wallahi maa ngi koy waar ci alquran su fekkee lii may wax amul yàlla bu ma àggale koor gi yàlla naa dee. Mhm. wallahi lazim yàlla bu ma gis Cheikhu Tidiane yàlla bu ma gis yenan bi yàlla bu ma gis Mawlana Cheikh Ibrahim mi ma bëgg ndax man. ban njëriñ lañ ma amal may sonn ci sonn gi kenn fayuma utuma ci kenn dërëm ñaanuma kenn maa ngi am sama lu ma am di ko sante yàlla dëgg sama famille ñoom xam nañ ma bu baax lii may wax ni waa Medina Baye suñ ko déggee darañ ma ko seedeel mhm. amul ku ma ci deful teraanga amul ku ma ci dul yëkkati di def te yàlla rek tax musuma am ak kenn problème ci biir Medina koo xam ne dañuy wax ne ñun ñaar ñi ñoo jotee nii nii fàttalikuwuma ko bokk. dëgg la. fàttalikuwuma ko. dëgg la. jàmm laa fa am. kooku nag nekk leeral TV. waaw. teg waxu Adji Sarr bi démb. xanaa sooy nit di wax dana am ku koy tontu. normalement. nee na loolu la doon Adji Sarr di wax ndax dafay préparer ndax la Adji saar wax tudd kilifa yoon bi mu bëgg ko étese nit ñi duñ dof nit ñaa ngi toog di déglu di xam. loolu su waree génn kilifa yooyu mu tudd. su waree génn rek dana génn mhm. te kooku noonu nag ne sept minutes de vérité mhm. la wax de waaw na préparé moom hmm. maa ngi koy wax na ko mhm. moom na préparé billaahi wallaahi tallaahi xam nga man duma ma dugg ci nit duma ma tooñ waaye gannaaw dugg na ci samay mbir dinaa wan Sénégal yëpp na leen ca lam dugg nii ca la muy wax nii yëpp foo la am na lépp te dina leer. dina leer yow la kaay. ba mu leer nañ. loolu man maa la ko wax. te loolu maa ngi wax sénégalais bis yàggul dara xam nga man damay wax di def man bokkuma ak ñiy wax naan damay génn damay xaar ak damay na déedéet. Mhm. kaas. yow de génne nga ko fi. may ma fii du mat laa la wax deux jours dina la commencé heure bu ñuy ndogu. waaw xool ma Sénégal yëpp may teg waa jooju taxaw ci télé bi. Uh-huh. ne man maay jokkanteeg ndaw soosu. waaw ma lay tegal benn preuve par benn preuve ci moom sénégalais yeewu ci moom ci loo xam ne lu leer naññ la. très bien loo xam ne man maa la ko wax lu leer naññ la ci ay nit. ci digganteem moom ak Macky Sall ci digganteem moom ak politiciens yi nu muy doxalee ba ci ba ci ba ci laa wax naa la ko wax de ba ci ba ci laa wax kër gi nga xam ne nee na am na ko ci booru ndox mi jox nañ ko ko lépp dana leer ki moom leeral TV nag waaw gannaaw ci teleem la ñuy waxee man di ma tudd uh-huh. ne ko maa ngi koy fàttali nag ne ko bu mu fàtte ne jabaram sama mbokk la uh-huh. te avant mu koy takk uh-huh. la xew xam naa ko na def attention bu baax. foofu laa am pour wax. wallaahi. Sénégal nañ ma bàyyi xel. non MC puisque. ragaluma puisque yaa ngi ñëw kay tawuma lépp dina leer. dama lay wax dala ragaluma. tawuma. bougé wu ma maa ngi fii di dox si samay soxla ku ma soxla maa ngi fii. di la wax na la lu ma lay mujj a wax nga xam ko. MC Niass. Mhm. no stress jamais <laughs> jamais ma parce que kenn du teg ci sama bopp bi lu may stressé amul ndax maa ngi lekk ba suur maa ngi naan ba màndi la waali sekk waxoon ndax xol yaa ngi féex man sama xol a ngi féex xaw ma nag xolu keneen bu baax ñu may saaga nag mhm. suñ demee ba dëgg taxaw ñu xam ne am naa dëkk mhm. baalu ma ci kenn ba ilaa yowmal qiyaam ci kanamu yàlla su fekkee na nag ñi nga xam ne nag ñoom man maa leen tooñ mhm. yàlla ñoom buñ ma baal ba ilaa yowmal qiyaam ndax yàlla mooy atte waaye képp koo xam ne rek wax nga ma mhm. ci sa waxu bànneexu bakkan nga xam ne yaa wax lu la neex mhm. na nga xam ne yàlla ëllëg baalu ma la ko ba ilaa yowmi diin Mhm. loolu moom naa xanaa nga raamee fa nga nekk wala fa nga nekk nga jógee fa ñëw ba ci man mhm. waaye képp ku mën a doon rek yàlla nañu yàlla atte yowmal qiyaam te dëgg man xam naa ne moom laay am ndax li ma yore rek laa mën a sukka sukkandiku na dëgg la lii lañ ma wax lii laa mën a def waaye leneen am ma ko du ma sosal nit mhm. kooku nag nekk ci télé bi na préparé boppam <laughs> rendez-vous baa ngi ñëw na préparé boppam Sénégal yëpp dinañ oh, bu leer Mm-hmm. na préparé boppam mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. jaajëf. kilifa bi ziar naa la waay après maa la def ci ndogu bi. di ko ziaree ñëpp di ko ziaree sénégalais yëpp. di leen wax na leen li wax naan dama dell dellu gannaaw man sama yoon nekkul ci ay geeru jàmbur. ay xeexu jàmbur sama yoon nekku ci waaye gannaaw nag ñoom ñu féete ci nguur. ma bokk ak ñoom féetee ci nguur ñoo ma té di asaka saaga mhm. ah léegi nag kon man ñi nga xam ñoom laa bokk ak ñu may saaga di ma xeex kon nañ leen ci dem man wax naa leen mhm. atay na leen Sonko billaay uma ko soxlawuma koo xam soxlawuma koo jege awuma ko man waa mbiri na ñoo ma xam waaye ñu ma xamul xamuñ ma léegi nag gannaaw ñoom ñoo nekk ci nguur ba pare di ma saaga di xeex mhm. nañ leen ci dem man nee naa leen du ma sëriñ pour rus boppam doomu sëriñ la mais duma ma sëriñ bu rus boppam te sëriñ la sax mu neex mu naqari mhm. ndax doomu jaan-jaan la mhm. kan moo ma ci mën a jël man su suñ doon seddoo Sénégal damay seddu sama maam dafa xare muy alaaji Abdoulaye dafa jógee Jolof mhm. ca mbalax ñëw biir ñooro ànd ak Mbaba Jaxu ba xare muy alaaji Abdoulaye ñas bàyyi Cheikh Ibrahima ñas sama maam la jor histoire amut lu mu ko bindeewul te moom moo jur ma sekk ma sekk jur Faat xanaa loolu doy na. Mhm. ba pare nag gis nga sama photo boobu dinaa la ko yónnee ñu fal ma buuru buuru amirul amirul Medina ma téye sama yet kaalu sama kaala dinaa la yónnee photo yi. Mhm. man maay buuru maay buuru maay buuru Saalum. Mhm. Medina Baye. gama dëkk. no stress. I'm telling you. I'm telling no stress. non rendez-vous bi dina neex suñu suñu rendez-vous bi ci suñu rendez-vous bi kay dina leer fan yi. yow kañ toogal déglu ma rek. incha allah. man maa ko wax uh-huh. ma. très bien nañ toog déglu ma nañ toog déglu ma incha allah. no problème comme ni nga ko comme ni nga génnee premier bi rek ci ci ci ci ci suñu Kayz Fof TV. gis naa gis naa gis naa ni ñenn yi xamuñu woon yow yaa ko génne mais ñu leeral ko fii nii rek ni yaa ko joxe woon en direct ci suñu seen YouTube bi Kayz Fof TV. numéro boobu ma jox noonu waxu Mamour Diallo bi ak ki nga xam ni mooy aji Rabi boobu. Mhm. du man maa ko enregistré aji Rabi moo ko enregistré. moo enregistré Mamour Diallo denc ko ci biir yéreem yi. Mhm. di ko enregistré. ba mu paree. Mm-hmm. moom moo ma ko yónnee. Mm-hmm. te nu ma ko yónnee dinaa la ko yónnee yow nga gis ko. boobu mu ngi nekk ay côté décembre bi la woon. Mm-hmm. ba may dégganteeg moom ci décembre bi la. ci bi ci décembre bi. waaye yaakaar naa décembre bi ay le treize wala jour lundi la daal. mu yónnee ma ko mu numéro Mamour Diallo sax mu ngi ko ci defaale dinaa ko photo yónnee la ko nga mën koo wane. très bien. téléphone beeg yépp numéro bu ma ooyee ak nu ma bindee aji bi aji sonko laa ci bindee noonu laa ko noonu laa ko bina bindee dégguma français mm-hmm. jànguma ko mm-hmm. noonu laa ko bindee xaaj mm-hmm. aji bi ci français noonu laa ko bindee naa la yónnee photo bi woon yónnee la nu ko yónnee bu gën a leer ci nit ñi ñu xam ne lii <laughs> waxu waa ji moom moom ma ko yónnee boobu yow man maa la ko yónnee boobu moom leer na añ yow yaa ko génne ci biir ba yi waxtaan ci laa la wax na la kaayis nga na ah ma ne la dama la koy yónnee léegi sax bañ waxtaanee ba muy waaj a jeex nga ne ma bul fàttee jóg ma ne la yónnee naa la ko bu yàgg ci nga ko génnee teg ko di ko firil nit dañoo bëgg a xam ndax man am naa seeni enregistrement dama koy waxaat aji saar awma sax sa enregistrement waaye daal loo dégg loo leen dégg rek na ngeen xam ne loolu moom <laughs> fruité man aw ma arrêté wu ma kenn <laughs> voilà loo leen rek dafa fruité man arisere wu ma kenn waaw waaye man mala ko akay inshallah incha allah d'accord jërëjëf waay gaa jërëjëf jaajëf jaajëf à bientôt a bientôt ala yone sama photo bourri yi luma la wax noonu lim ma yone won pour ma firnel sénégalais na len ñom rek laa àndal man toppuma ci gannaaw ken très bien tamit gis ne aji amna lo xamni deug la lo xam amay nako mom loo xam ne mën naa dugal Sonko su ma ko joxee tamit ma génne ko. très bien. envoyé ma ko xam ne man nekkalu ma kenn sama bopp laa. dinaa ko def ci photo bi gars yi gisaale ko sax. merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf maa ngi la ko yónnee léegi. jërëjëf jaajëf men jaajëf. jërëjëf salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum.